kër diine bu nekk président Macky Sall taxaw na fa ba ku si xewle mu ñëw gis la xam ne si sa si sa njaboot laa si si sama njaboot ngeen boot kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla may sagoom Sénégal yëpp bég nañu si moom ndax euh, liggéey yi muy def defar na Sénégal yëpp soo gis duggee Sénégal tey foo dem euh, di nga si sant yàlla lu si gën a man ci sama boot lu si gën a fës si samay jëf diggante bokk Fuuta si île à Morphil lañ koy wax euh, foofu soo fa doon dem coono bu rëy a rëy ngay am euh, loo xamee ne motul soixante-dix kilomètres mais di nga si def ay heures yu bëri mais keroog gëj naa dem Fuuta mais keroog bi ma demee Fuuta defuma huit defuma dix minutes ma egg fi ma doon jëm te pourtant jaar naa fa def fa lu mot ay trop vingt-quatre heures guddi bi yëpp dañu réer donc may wax ne lii nguur gi su mu noonu rek defal ñu ay tableau foo jaar rek waxuma sax goudron mais léegi goudron la ngay jaar dem nit nag du këpp jëf yàlla bëggul koy këpp jëf soo gisee lu baax da nga koy sant Sénégal nag dafa jafe euh, da ngay def lu baax mais nit ñi toujours dañuy critiquer critique baaxul nañu defar wax lu baax qulu linnaasi xusnan loolu la suñu borom wax nee na wax leen lu baax وهنا كفكروا لغا من من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كغم يالا غن غم بسو بنت نغا واخ لو باخ ولا نغا نوبي سو امي سافان بي بوكو واخ الكسيون يي نيو جيم يالا نكو يالا ديف جام مو نيك الكسيون يو غنا بري جام سي الكسيون يو فاسي جيم نكو يالا ديف لو يالا دوغال كومو دوغال كومو جوخ ييب نون ييب نيو بوك نانغوكو داخ نغور يالا موكاي جوخي قل اللهم مالك الملك tuutil mulka man tasha yàlla nee na man maa yor ku ma neex laa koy jox kon kum ko jox yëpp ñun nañu nangu ay jaamu yàlla lañu bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo ndax jàmm mooy lépp fépp fu jàmm nekk yiw daf fay nekk développement daf fay nekk fépp fu jàmm nekkul yiw du fa nekk développement du fa nekk